sen normal bu dara amee yow yaay taxaw maanaam président premier ministre bu defee li nga xam ne loolu la war a def rôle dëgg-dëgg-dëgg président de la république moom kenn waru ko sax gis lu bëri muy fen ci ay caméra parce que moom li mu war a def c'est au la moom li mu war a def mooy xool naka lay fexee pour pour defaraat contrat yi. li mu war a def mooy naka lay fexee pour di signer ay accords yoo xam ne. Mhm. diggante Sénégal ak yeneen réew yi. tey jii nii Lobs nga tey jii nii man bu fekkoon ne beneen journal moo taxaw euh, man am ñaari journal yoo xam ne ah man lu ñu ñu tiitiree dara. donc wax dëgg yàlla du ma si du ma sonn di di di vérifier ak di am lu ma siy tiit. Hmm. muy l' observateur ak le quotidien parce que dafa nekk ay journal ay journal yoo xamante ni nii. Hmm. lu dul jaboo lii seen nekk wuñ ko fii. l' observateur lu mu bindalul imaam Alioune Badara ndaw da koo fàtte lu mu ko bindalul ay jihaad si laak dafa yoroon armoog jabaram dafa yoroon armo da doon encaissé xaalis amul lu mu bindoon te li mu doon bind histoire dafa dem ba ñëpp xam ne dara du si dëgg ay kàccu neen la l' observateur lu bindalul affaire force spéciale yi. 2019 nee na woon Sonko të të tëb moom moom moo koy financé nee na bu yàggul lañ lañ lañ wax ne am na xaw ma ñu nekk du Dubaay ñoo xam ne ñoom ñoo koy financé maanaam lu nekk bind nañ ko pour lan pour diaboliser Ousmane Sonko moo tax bu ñu ñëwee tey ba mu toog ñu ko ne di bindaat loolu da nga xam ne si seen manine la ñu nekk parce que ñoom wax dëgg yàlla. amatuñu crédibilité si bëtu da gis nga dafa am ay journaux yoo xamante ne nii si écran bi la yam nii rek nit ñi di ko xool mais amatul benn crédibilité si bëtu askan bi parce que man pour man li ma gëm si surno mooy. Ah, da ngay bind sa akulaay daala ba ñu ngi jaar il fait des. mais mais mais c'est ñu jaay parce que parce que tamit dëkk bi tamit noomeel am na ñu la bëgg dëkk bi noomeel am na ñu la bëgg de. Hmm. bien sûr alors yow ni ngay waxee. contrairement ak Moustapha Diakhaté sax bu am na ñuy toog di <laughs> si si noonu euh, euh, ndax yow da nga jàpp ne contrairement ak li l'observateur wax avec Ousmane Sonko on a vraiment un premier ministre qui fait son travail c'est pourquoi le président. Euh, il gère peut-être la diplomatie ak affaires étrangères. mais mais ñoom bu ñu bu ñu tey jii nii loi bi nga xam ne war nañ ko dugal pour yokk doole premier ministre est-ce que bu ñu ko yokkee baa kon bu ñu bind ne premier ministre dafa def coup d'état <laughs> ah bu fekkee ñoom yokk guñ doole premier ministre ñu ne premier ministre dafa bëgg a nangu pouvoir bi dafa bëgg évincer président de la république te am te amagul yenn doole yi pour mën a pour mën a signer yenn accords yi léegi bu ñu yokkee doolam nan la def te pourtant ñi dañ ko waxoon ci campagne bi ñu ñëw que ne que dañuy jox premier ministre benn doole comme benn genre vice président la fay nekk nga xam ne dafay am pouvoiru di mën a signer di mën a fal di mën a folli léegi est bu premier ministre amee loolu ñoom duñ ne premier dafa def coup d'état maanaam gis nga loolu lépp mooy li ma la wax mooy. bërki démb je pense que bërki démb la dama gis euh, le quotidien bu Madiambal Diagne mu tiitaree que ne le gouvernement di di di di primature maanaam gouvernement beneen maanaam comme si Ousmane Sonko dafa boo xamante ne nii si biir primature la nekk waaw mais mais ni mu ko bindee parce que loolu xam na ne sénégalais bi nga xam ne moom mooy liir du xam ne ah kii kat donc euh, ki muy wax mooy Ousmane Sonko ay conseil am ak ñi nekk biir primature di ko liggéeyal mais dafay jàpp ne kon Ousmane Sonko dafa créer beneen gouvernement boo xam ne primature la nekk bu bokkut ak gouvernement président Bassirou Diomaye Faye bi nekk palais maanaam loolu loolu lépp xeetu jaxase la yoo xamante ni nii sénégalais yi dañ ko miin nit ñi dañ ko miis ba mënatuñ leen ci sonal gis nga man wër dëgg yàlla man bëgg naa parce que man du ay question farfar mais man dama gëm dëgg quoi. te man man dëgg laa laay taxaw. du taxaw fii mukk di waxal Ousmane Sonko loo xam ne parce que lan pour bëgg ko raay raayal parce que Ousmane Sonko jonk joxuma 15. Mhm. dégguma ko téléphone déw ma këram déw ma primatire gisante wuñ kon du ma ko wax loo xamante ni nii pour lu ko neex la wala lu neex ay nitam mais gis nga dëgg moom moo neex yàlla. bu dëgg jotee nañ ko wax. ñu bàyyi diaboliser bi te ñuy wax li nga xam ne moom mooy réalité. parce que nit ñi tamit attention de gis nga boo bindee sa journaux nga yaakaar ne nit ñi loolu nga bind noonu nit ñi dañ ciy topp nit ñi ñi ngi dem ci réseaux sociaux yi ñi ngi seetaan télé xam nañu li xew ñi ngi ci mbedd mi xam nañu réalité dëkk bi kon actuellement nii média mënatul mënatul di di di di def ay propagande pour lan pour ñuy dal ci benn pouvoir loolu média mënatul ko parce que réseaux sociaux yaa ngi fi. d'accord la preuve événement yi bi mu ñëwee lan lañ doon tëj réseaux sociaux yi lañ doon tëj mhm. ñu média yëpp. parce que xam nañ ne nit ñi réseaux sociaux yi la ñuy gën a topp te réseaux sociaux yi information ba nga fa mën a am sax mënoo ko am ci média yi la preuve seen mais seen site internet bii nii euh, muy moom lañ gën a seet am na yoo xamante ni yéen li ngeen mën a am sur YouTube mënuñu koo am mm-hmm. lan moo waral loolu parce que information da ngeen di def information si c'est vrai di invité ay nit ñu taxaw di wax li nga xam ne moom moo am par rapport a ñenn ñi nga xamante ni nii dañuy xool ku mën a dal si kaw diw ñu invité la pour nga pour nga ñëw dal si kaw diw foofu la foofu la àdduna bi toll. te il faut aussi ñoom ñu xam ne àdduna bi dépassé na. donc niveau de propagande yooyu ñu daan def. d' accord alors euh, ca RTS la ñuy la ñuy dem. Mhm. Euh, le nouveau directeur Pape Alé Niang jamono ji digganteem ak euh, agent yu RTS. ay ñagas ñagas bari na ca. Mhm. bokk na ci lu ko waral nag muy décision bu mu mujj jël. suspendre accord d'entreprise bi nga xam ne mhm. euh, amoon na euh, te ki leen ko signaloon di ki ko fa euh, jiitu wala ki fa wuutu mhm. muy Racine Talla mhm. li demoon ci yenn prime yi ñu ci doon am ak ay privilèges ak augmentation salaire ak yu nu mel ba mu jur réaction ci seen ci seen seen côté ba moom Pape Alé démb gis nañ ko mu génnaat ne dina jël see responsabilité naka yow nga gisee situation boobu jamono ji moom la nouveau ak les agents de la RTS. waaw xam nga gis nga réew mi aussi mhm. euh, dafa am loo xamante ni cinquante quatre pour cent ci population bi dañu génn ñu wax ko mhm. dañu génn ñu jël seen ay carte dem ci urne yi voté ji. Mhm. lan moo tax ñu dem voté ji pour parce que nee nañ dañoo bëgg changement. parce que nee nañ dañu bëgg rupture. Mhm. moo tax 54 pour cent ci population bi dem wote ji. parce que rupture la ñu bëgg changement la ñu bëgg. Mhm. maanaam li fi amoon ñu dindi ko fi. système bi doon daw ñu jëlee ko fi. changement bi mooy lan mooy jubbanti ba ñëwee lan la ñu wax dañ ne jub jubal jubbanti maanaam ku jubul. Mhm. dañ lay jubbanti pour nga jub. léegi nag ci biir jubbanti boobu noonu pour man force dina am ñoo xam ne du leen arranger. xam nga avant sax ñuy egg si foofu noonu dafa am fu ñu waroon a njëkkee mooy sabotage yi nga xamante ne nii Racine Talla ba fa nekkoon def na ko fa Racine Talla décret yi nga xam ne moom la mujjee jël muy le 29 mars pour yokkal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey RTS seen ay salaire ku doon am deux cent mille francs mu yóbbal ba huit cent mille wala ba sept cent mille francs yaa ngi dégg jël ñi nga xamante ni nii ñoom ñëpp dañ fa doon liggéeyee mu defal leen ay privilèges yoo xamante ni nii pendant douze ans bi nga xam ne état mi ngi ci réew mi ñu koo def mais ñu bàyyi ba desee trois jours quatre jours ñu door a def loolu noonu déjà loolu acte la de sabotage la yoo xamante ni nii pour keneen kiy ñëw dafay am problème ak ñi nga xam ñoom ñooy employé par force parce que nit ñi bu fekkee ne euh, euh, ñaari weer am nañ nga bëgg a xëy ñëw ne leen da ngeen di delluwaat seen deux cent mille yi force day am problème parce que ñoom xamoon nañ lii moo tax ñu def ko mais ñoom euh, ki nga xam ne mooy délégué des euh, de collège délégué de de la RTS. Mhm. Euh, Mama Moussa Nia. Mhm. coordonnateur des collèges délégués de la RTS moom. li mu wax mooy même su fekkente ne contrat bi yéex nañu ko signe nekk na loo xam ne signé nañu ko. le président Macky Sall signé na décret boobu. Mhm. juste avant mu fi jógee c'est parce que tamit dañoo nekkoon ci ay négociation négociation moo yàgg donc ñu dem ba moment boobu. Euh, ci la ci ni mu ko waxee. Mhm. Euh, ci la partenaires yi euh, wañ loxo président ak Sall. ba mu mhm. signé lu ñu mel. léegi c'est pas parce que dañoo dem bay war jógee fii rek. daal di léegi mam mam man bëggoon naa ko laaj man waroon naa jàkkaarloog moom ma laaj ko ne ko bi Racine Talla nekkee RTS di dàq ay journaliste di leen mettre au frigo. mënatul liggéey di leen jaay doole. Mhm. mam Moussa Niang fan la nekkoon seen syndicat boobu fan la ñu nekkoon. bi Racine Talla di def yooyu yëpp di jaay doole euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy travailleurs yu RTS ku fa nekk da ngay wax li neex Macky Sall wala mu jëlee la fa Mame Moussa ñaam fan la nekkoon bi bi loolu di am kon tey bu ñu bàyyi ba beneen directeur ñëw xëy na ñoom privilège bi nga xam ne doon nañ ko am mu ñëw ne leen lii jaaduwul dañ ko war a sensé parce que ñoo woote jubbanti dañuy woote askan dafay defaraat loo xamante ni warul woon a am yow d'accord nga si ñu ne la chaque fin de mois de juin day benn enveloppe bu Euh, deux cent yoo xamante ne nii ñoom dañ koy séddoo ñoom ñoom seen biir muy ñoom te ténor yi deux ñu ne la koy séddoo chaque fin de mois de juin. te bokkut ak li ñu leen di fay te bokkut ak li ñu leen di fay yow d'accord nga ci loolu. ñu ne la deux cent cinquante trois lignes téléphoniques yoo xamante ne nii dañ ko jox ay nit yoo xam ne li ñu si ëpp sax liggéeyatuñu RTS parce que lan parce que dem nañu retraite ñu continuer di leen ko jox bu weer bi dee ñu indi facture yi RTS fay ko ci xaalisam. est-ce que loolu lu jaadu la tey jii nii am na koo xamante ni nii mais dafa am wala du ma sax am na koo mais dama naan ñu bëri ñoo xam ne mujj ci liggéey seetuñu seen kër lañuy ñuy toog bu weer dee ñu fay leen. ñu seen salaire. mais bien sûr. loolu dégg nga si ki nga xam moom mooy xaw ma soxna xaw ma euh, nan nan Mbàkke jabar si Cheikh Modou Kara bi dégg nga ñu koy tudd si loolu. te ne bokkoon na si ñi nga xamante ni nii da daan toog kër bu weer dee ñu fay ko ba koroog muy dem retraite. c'est grave. léegi mais est-ce que loolu yow. di nga ko mën a d'accord ci kër gu toll ni RTS ak ci geneen kër gu mu man di doon ñu jël alalu askan bi mel ni ñoom dañ koy pasar pasaree di defal nit ay privilèges yoo xam ne xam nga ne kii privilège bi waru koo am waxuma nag ne waruñu wax yokkal kenn salaire am parce que képp kuy liggéey man dama gëm ne dana la war a yokkal sa salaire boo xam ne dina tolloog sa niveau de vie pour nga mën a nekk sa jàmm yow ak say njaboot mhm. mais nag du ñuy jël dara ci yaama neex donc parce que euh, yow lu mu bëgg loolu ngay def parce que lu mu bëgg nga wax loo ko loolu ngay loolu ngay wax donc dinaa la defal loo xam ne say morom duñ ko am man d'accorduma si loolu dama ne Pape Alé na xam ne dañ ko fal RTS pour mu jubbanti RTS ba RTS méngoo ak jamono parce que RTS musul méngoo ak jamono RTS musul méngoo ak bëgg-bëggu sénégalais yi maanaam RTS sénégalais yi sax dañ ko considéré wul comme télévision nationale maanaam dañ ko jàppee benn télévision privée boo xam ne état moom moo ko moom lu nee état def loolu moo fa amoon la preuve gis nga bu yàggul ay ay Abdou Mbow ñu ñu ñu jox leen fa micro ñuy xas Ousmane Sonko loo xam ne mosu faa am bi fa Racine Talla di nekk waa opposition bi muy benn Bokk Yaakaar bu ñu def conférence de presse été dem ci conférence de presse bi couvrir ko jël ko ba pare wane ko. Mhm. ñaata yoon nga gis bu yàggul dara am ñuy am ñuy ñaxtu buntu RTS RTS génn wax ko euh, jël jël ko ñoom ñu wax li nga xam ne moom moo leen metti RTS jàllale ko journal est-ce que loolu mas naa am RTS kon ju commencé am. te jubbanti nag gis nga bu dee am mu ngi inscrire moom ci bi ñooñu woote jub jubal moom laa lay wax moo gis nga Pape Alé Niang billaahi wallaahi man ni ma ko xamee xam naa ne xoolal jaral na ko ñu dàq ko mu delluwaat Dakar matin mais dina jubbanti RTS képp ku ko taxaw nag euh, teekoo koo jubbanti RTS donc jàppal ne di nga am problème parce que moom bañu si ba autorité yi dàq ko mu delluwaat Dakar matin gi mu nekkoon léegi nag bu fekkee ne ñoom Euh, dañu dañu jàpp ne xëy na daf leen a commencé xañ di di xañ loo xamante nii donc moom la ñu amoon parce que li ñu amoon est-ce que jaar na si yoon si yenn anam lañ ko amee woon est-ce que liñ ko amee woon tegu na si tegu si dëgg. d'accord moo tax man dama gëm ne gis nga dama gëm ne du RTS kese muy société bu man mën di doon si Sénégal mooy nañu fexe ba jub jubal jubanti bi nga xam ne état bi loolu lay woote. Mhm. ñu fexe ba mu am foofu noonu. parce que amul benn sénégalais. bu gën moroomu sénégalais amul benn journaliste bu nekk RTS bu gën bi nekk TFM wala bi gën bi nekk 2STV ñoom ñëpp ñoo yem ci loi bi sénégalais yëpp ñoo yem kon waruñu jël alalu Sénégal di ko caxat caxatee muy yem ci yenn sénégalais yi yeneen sénégalais yi di fayeeku lu néew buñ dee yokk nañ yokkal sénégalais bu buñ dee wàññi wàññil sénégalais yëpp. d'accord parce que ñëpp ñoom ñoo tolloo ci devant la loi. d'accord. alors euh, mbégte mu réelu woon Ousmane te ñu seqaat ak yow waxtaan di la sant bu baax di la gërëm di la bàyyi rek nga tàggoo ak mbokki internet yi te su fekkee tamit am na message boo leen bëgg bàyyi bàyyee euh, nga jàllale wàll leen ko ñu yëgiti jotaay bi ba beneen yoon incha allah di la sant bu baax di la gërëm ci disponibilité bi.